ñun liggéey ñu dara amuñu dara luñu liggéey parce que da ngay def ben voyage ñaari voyage journée bi ma ngi ni taxaw ben voyage la def ñew xawma ma dina yebatam fek heure bi mais lu mu mëna a dañu koy muñ comme ni ko ñepp muñé wante nak dégg développer ay war ko jox transporteur yi war na law ba ci chauffeurs nak parce que chauffeurs nak ci yef yi lañu waye xaliss fuñu ko mëna génné ci Sénégal ñañu ko jox duñu ko joxé fokk ñu sàkk ci pexe de 1 chauffeur yi ñom ñuy calculer manam nombre de places yi té nombre de places yi féké dañ ko wàññilu té répercuté wu ci gasoil bi ñuy sol par ngoon ni de ñom duñ am versement ci auto yépp ay versement la ñuy liggéeyee léegi nag dafa la yoon ñu waxtaan ci su ko fay ñu trouver terrain d'entente même bu ñuy subventionné gasoil bi sax pour un moment ben ben certain moment ni sax ko quoi mais ay mesures tamit dañ nombre de places ya le té fi mu la ba complications. effectivement effectivement changement bi sentir parce que déjà li a fait fay euh, donc, il à la limite trois fois hein à la limite parce que donc ñun ñëpp gis nañ ne pass yi yokku na et puis même non seulement pass yi yokku na mais trafic bi aussi dafa gëna doy war parce que pour que nga am auto sax bu la c'est tout à fait un problème donc pass yi moom kenn mënul ne yokkul bon man day en personne mom yëg ko parce que li ma doon fay ben actuellement maa ngi koy fay ñett. carte la won ñuy may fay 1250 ñu am 1200 ñu koy fay légui muy deux deux personnes deux personnes est-ce que man nañ ko yebee. 1250 comme comme li ñu ko doon yebee loolu laaj dama lay laaj delloo laaj bi est-ce que loolu mën a nekk mënul nekk kon lii 2500 yi 2000 euh, xam nga 2200 yi foo nu def ko munu ko defal duñ ci génn dug coxor nag dug coxor danoo amul pexe te noo toog clients yi amuñu pexe pour toog. waaw bu njëkk ba ñun set suñu oto set lay jël ak ah, chauffeur bi muy huit mais léegi on est def ko léegi cinq. cinq places léegi la ñuy jël quoi te loolu tey ji lañ ko commencé ndax démb ko woon def ndax am na mesure yoo xam ne buñ ko indee automatiquement doo xëy rek bëgg a def lii li nga daan def il faut nga jël si ay mesure d' yoo xam ne boo ñëwee def dina arranger clients yi dina arangé yow mi di liggéey en même temps quoi. ñun moom wa yokkuñu paas quoi mais cinq places yi léegi dañ ko compenser selon li ni client bi doon fay quoi nombre de places yi xam ne moom la ñu daan yeb comme ko ba ko cinq places. fofu léegi dañuy am luñu compenser par exemple fu dee am ko daan fay 150 la daan 200 ngay fay bu 200 ñu ne la 250 ngay fay c'est surtout pour mën a réduire yenen place yi nga xamné tay ji jii nañ ko ndax lool tay buñ ko défé ñun duñ ci génn ndax gasoil lañuy lak lakk gasoil bi tamit état bi wàññiwu ko